ak xol bu jeex lañ daal di àndal bokk na ci lu leen métti di corniche bii nga xamante ni nii ay fan a ngi nii dañ ko bëgg a nangu seen loxo li ko waral ay dëkkuwaay la fa ñenn ñi bëgg a def te ñi ëpp si ñoom di fa daane seeni doole. si li ko sooke ay nit yoo xamante ne seen bureau la ñu toog jël pouvoir bi nga xamante ne dañ leen ko dénkoon pour ñu pour ñu fexe ba yemaale doomu aadama yi jàppal leen seenu nekk ak seen ak mais ñooñu la ñu gis tey. ñu foqale foqale goo xamante ne kenn mënoon na tatalee. moom mi le nag di wuyoo ci turu Omar si ab restaurant la daal di yor fii mu mel ni parking bi nekkee ci restaurant bi dafa am benn doomu général bu ko bëgg a nangu ci loxoom loole nag jàpp na ni du dëgg du yoon. te li ñu jëlee leen rek la mooy autorités yi bàyyil ñu suñuy suuf du parking bi rek de am na fu ñuy wax yër am na fu ñuy wax Kaaba moo njaay bëgg na sànq dañ ñëw. bu ñëw wàngalu ay nit wàngalu soxla ñun ñoo leen gën a bëgg lu baax ñun xam mënuñu mënuñu bay xamuñu bay ñun géej lañ xam ak brise de mer bi nañ ñu ko bàyyil dëkk bi dinañ ko taxaw ba ko mu yem rek ñu jël saay-saay yeex bandi yi ak ñi la ay problème ñu ngi seen i bureau toog la jaay ak ndomba tànk ak loolu dafa am fu muy ñu bëri nag di faral di wax ni ñoom ñi la ay politiciens lañ ak ay yeekatu fitna wante xamal nañ askan wi ne ñoom li leen ñor mooy développement wu Ngor ci bile coow nag bëgg nañ nguur gi teel see jóg suñu bëggul lu fi xewoon daal di fi xewaat. yaakaar naa ne li ñu dund si bu yàggul ñu toog plus semaine di jàkkaarloo ay takk der neexul benn doomu aadama te yaakaar naa ne kenn du toog si neexaayu bakkenam rek di di sooke luy jur ay bakken di si rot ay handicap ndax am nañu suñu blessé yoo boo xamante ne ba tey ji ñu ngi leen di fekk ñenn ñi yàgguñu leen amputé seeni i seen cër DSCOS dañu def benn acharnement jëmale ko si ñun DSCOS aujourd'hui primature la bokk xam nañ pouvoir bi ñu am duñu mës a xeexaa ñoom mais nag suñu laamal nañu di communiquer ak autorité bi mu xam ne tey ginnaaw am na lu may xew lu mu yëgul wasalaam. ci weeru mai bi ñu weesu nag commune Ngor dundoon fi ay manifestation yu metti ba ñu bëri jëlee si woon ay gaañu gaañu loolee nag ñoom ñi lee xamle nañ ni bëggatuñ mu am ñuy ñaan kii di njiiti réew mi mu téel a jóg ci bile situation.